IAR. Mhm. Euh, naka noonu itam la ko bàyyee convaincre ko exactement ni ki li na xam ne que mu di lënni e serait euh, justement impliqué dans une affaire de trente millions si euh, ministère bi nga xam ne itam nekkoon na fa. Euh, kaw Jéggi Diop ak rebondissement yi nga xam ni itam am na si allant dans sens euh, génnaat euh, dalaat si kaw Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Diakhar fay bañ jàngal nga si daal di def enfin chasse aux sorcières la wala kon leeral alula askan wi concrètement non il y a pas de chasse aux sorcières man gëwuma loolu. Hmm. gis nga chasse aux sorcières. doo doo doo bénéficier de retour de parquet wala demal sa kër après suba nga ñi bu suba non non non wala semaine prochaine nga ñëwaat nga dem euh, préparer wu ji ñun xam nañu luy chasse aux sorcières xam xama chasse aux sorcières hmm. duñ la may temps bi nga xalaat bi ngay xalaat chasse hmm. aux sorcières mooy Macky lu mu doon def fii ñu la convoké ñu jàllale la doo ñibbi sa kër mais ku ñu convoqué Jigi Diop ñu na la kaay wuyu nga toog wala ñu convoqué la pour la semaine prochaine wala nga bénéficier ci retour de parquet hmm. mais loolu du chasse aux sorcières chasse aux sorcières da ngay ñëw ñu jàllale la yóbbu la ci juge d'instruction mu dóor la mandat de dépôt nga jàll loolu mooy chasse aux sorcières ci jamono Macky Sall da ngay ñëw Mamadou Seck wala keneen Mamour Diallo wala keneen gars yi kii mm, mm. gars yi ne la les ordres viennent d'en haut mooy maanaam acca da ngay dem c'est ça la réalité on n'y peut rien on n'y peut rien maintenant yow ku ñu convoqué convoqué Djigui Diop nga ñëw ñu ne la ay waxtu ñu ne la ñibbil sa kër mën ngaa ñibbi sa kër mais bul bul génn réew mi bu subaa nga ñëwaat wala semaine prochaine nga ñëwaat loolu du chasse aux sorcières loolu kay dañ laa may temps en attendant nga dem defarwaat bu fekkee am ngay preuve yi ngay wane en attendant nga defarwaat booy ñëw nga andi ko yow lañuy ñuy dimbali yow lañuy jàppale yow yaay fàttali le cas de Lat Diop. Mm. Lat Diop ba mu ba koy convoqué la première fois dañ ko bàyyi presque deux semaines trois semaines un mois muy wër ci média yi di naan man guerrier laa man du ma ragal mu dem émission moom ay Diop Fall yaa ngi dëgg émission boobu Aïssatou Diop ay Aïssatou Diop Fall di ko xalamal ne ko bienvenue au club yow guerrier nga yow neexa nga faral dimanche. Hmm. waaye. gañe nga yow gañe nga combat bi yow Lat Diop yow neex ngaa faral dimanche. ay satu Diop moo doon wax Lat job loolu yoonu noppi xam nga justice yàkkamtiwul dara justice yàkkamtiwul dara Lat Diop olike olike moom mu dem defarwaat andi ay preuve ci moment bu ñu ko bàyyi un mois je ne sais pas trois semaines moom muy topp ngàngooram topp ñoom ay Aïssatou Diop Fall di dem ay émission di wane ni que moom guerrier la moom ragalul moom sëtu xawma lan diw moom mais il a le droit. tu vois mais il a le droit ñu woo la une amoo preuve. mais il preuve malheureusement. moo tax ma ne la nit ñi bu ñu tombee ci ces genres de pièges yoon bu la wooyee mën na laa libérer nga dem sa kër. mais yow yaa war a xam ni ba léegi tu dans les collimateurs. il faut que nga xam ni ba léegi tu dans les collimateurs. boo mënee dem liggante ay preuve demal gaaw gaaw gaaw liggante ji ay preuve yu lay setal demal gaaw a gaaw a gaaw bu fekkee am nga ñu lay jàppale ci ay preuve man waxuma la ci mystique de parce que ñoom mystique lañu ñu yaakaar. Mm. da ngay gis ay nit dem fay ay millions ay millions ay marabu jox ma ma sangu pour ma bañ a dem kaso. xamal loolu gis nga <laughs> sëñ Fallou dafa am woykat ba lan la woy c'est pas les marabouts c'est. c'est Dieu c'est Dieu boo yaakaaree ni yow mystique moo lay empêcher dem prison da ngaa nax sa bopp da nax sa bopp. yoon ak yoonal da ngay àndi ay preuve yu lay setal yu lay déchargé man yoon su ma wooyee man Arfan ñu auditionné ma. Mm. ba ay 18 heures ñu bàyyi ma ñu ne ma ñibbil sa kër. Mm. ba jeudi nga ñëwaat man su ma demee sama kër duma fanaan xam nga fan dem. Mm. damay wër bépp preuve bi may setal man. damay wër bépp preuve bi may setal. bur bu subaa fu may su may dellu. ma yóbbaale loolu jox ko sama avocat. Euh, am na sax si mbiru Nabou Leye bi da nga nee. demal oui nekk te yoon mi ngi ko ne liggéeyam. yoon loolu la lay def da lay bàyyi. léegi yow mu lay topp di xool say téléphone. merci gis nga bàyyi bu ñu la bàyyi nga ñibbi sa kër. Hmm. ñu ngi say say trace di xool say déplacement yi ngay jox to su fekkee ñoom raxas nañu sa téléphone yëpp. dem nañu Sonatel. Hmm. wala ci opérateur téléphone mobile bi ngay bi nga yor. ñoom ñu ngi déglu say démarche say écoute say tout ça. Mm. tu es sous écoute même dans les pays les plus sérieux au monde parfois les suspects on les mais sous sous écoute aux États-Unis si tu es ci benn affaire la police dañuy def tout pour te mettre en écoute ñi ngay jokkool à longueur de journée say démarche ñi ngay jëflanteel ñoom ñu ngi lay observer mais yow ñu relaxé la nga ñibbi ngay topp ay presse dinaa noo ba waa ji ne la yow neex ngaa faral dimanche. yow yaay sët lat jo lat joor ngone lat jop yoo xawma lan. Hmm, lat joor ngone lat ngoor ngóor ngone latir jop bienvenue au club yow ku neex a nga faral dimanche yow yow nga tapp mamboor bi rek di dem. alors léegi ana ñu la doon xalama ni yow ku neex a faral dimanche ñu ngi lay seeti kaso. kon yow neexoo faral dimanche. mais attends euh, si mbiru ki na xam ne moo di Diégui Diop par rapport ak li na xam ni itam doon nañ ko daal toppee mu nekk euh, mu nekkoon ñiitu promotion euh, daal di wàllu microfinance et dans d'autres et tant d'autres trente million yi nga xam ni itam sëree encore une fois ñu ne tudd ngeen tudd tudd tudd nañ ko si wóoluwaat nañ ko si kanam yoon ak wàllu yoonal la lan ngay xaaral ni Arfan si moom waaye itam si yoon ak wàllu yoonal ñaari parti yëpp. dama nañu bàyyi yoon def liggéeyam man loolu laa gëm. que ça soit le cas de Djigui Diop que ça soit le cas des des personnes qu'on a convoquées aujourd'hui que ça soit ci reddition des comptes bu muy ñëw nañu bàyyi yoon def liggéeyam. Hmm. nañu bàyyi di naan Ousmane Sonko si xam nga lu xew rek Ousmane Sonko c'est tellement facile man je n'aime pas cette facilité là. ne Sonko sonn na. non Sonko non lu xew rek Sonko rek c'est tellement facile. au moins c'est ça Ousmane Sonko bu nekkoon président de la République comme jamono Macky Sall ñu ñu doon jàpp fii ñu ne Macky Sall moo ma jàpp. Mm. là ça peut être c'est un peu compréhensible est-ce que comprendre nga. Mm. parce que il est le chef suprême des armées il est le chef suprême de tout voilà moom moo moom moo moom moo ilif ñëpp. tey sax bu ñu tuumaloon sa jomaay mu xaw a cohérent tuuti ñoom Bougane bu ñu tuumalee sa jomaay tuuti mu xaw a cohérent mais Ousmane Sonko qui est le premier ministre lu xew tuuti rek Ousmane Sonko la. lu xew rek Ousmane Sonko moo nekk sama ginnaaw si sama convocation Ousmane Sonko moo nekk di manœuvrer pour candidature Barthélemy Dias takku suuf Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko lee c'est tellement facile nit da ngay jël ay argument nga opposé ko da ngay opposé wu ci ay argument da ngay opposé wu ci ay argument hmm. mais xoolal opposition bi tey lan la ñuy opposé wu Sonko Sonko kese lañuy ñuy opposé Sonko lii Sonko lee Sonko lii Sonko lee du ñu opposé ci ay chiffres du ñu opposé ci ci ci comment comment ay développement. ci ay économie xam na xam nañ fi ma dëkk. voilà ay Sonko xam na fi ma dëkk. jarul mu may wër. ay jomaay so non loolu du opposition da opposé parce que wax nañu lii ci économie financière nga xam ci as tuut andi ay preuve teg ne preuve yaa ngi nii hmm. li ñu doon wax ci maquiller des chiffres man j'aurais aimé hmm. man j'aurais aimé waa Benno Bokk Yaakaar ñu organiser point de presse comme ni ñu ko defoon ci livre blanc livre livre blanc bi ñu leeral xaalis ñu leeral ñoom Ousmane Sonko lu ñu wax ni que ils ont maquillé les chiffres ils ont fait de la surfacturation yóbbu nañu économie bii tiir yóbbu ko fee génne nañu plus de huit cent et quelques mille milliards. sans traçabilité kenn xamul fu mu dugg non non non man j'aurais aimé ñoo ñu def ay point de presse leeraat ci loolu. xam nga ñoom ñoo géré woon pendant douze ans. bu ñu defoon sorti wax ci loolu Benno Bokk Ya Benno Bokk Yaakaar man peut-être ma ne yaa a opposition d'idées. y a opposition d'idées y a opposition d'argument mais ñu mel ni Bougane ñoo xamante ne ñoom musuñu. yor état mosuñu jege état mosuñu nekk ay fonctionnaire ñoom ñooy taxaw ñoom Bougane di naan noo waxul dëgg xam boo nee nit waxul dëgg nga génnee ay preuve bu wane ni que niw waxul dëgg da ngay ne waxoo dëgg lii moo tax ma ne waxul dëgg voilà les vrais chiffres hmm. man j'aurais aimé tey Bougane mu toog mun a sénégalais yi Ousmane Sonko par exemple waxul dëgg mais voilà les chiffres man buggan maa man maa leen di jox les vrais chiffres tu vois mu génnee ay këyit mu ne voilà les chiffres hmm. te les chiffres là sont accessibles partout mën ngeen dem ci site bii nii wala mën ngeen dem ci page bii di ngeen fokki ay chiffres yooyu xamal nii la ñuy opposé en fait c'est clair maître Moussa moo tax ma ma ma ma ma bëgg a waa ji hmm. je l'aime je l'aime maître Moussa Diop ma hmm. bëgg ko bu lay weddi day andi une tonne de document ok c'est clair. maître Moussa Diop bu lay weddi wala bu lay opposé day andi une tonne de document mu teg ko ci wetam si boo waxee rek mu ti teg mu ne la benn boo waxee rek mu yëkkati ne la ñaar boo waxee rek mu yëkkati ne la ñett moom noonu lay opposé day génne ay document même keroog bu muy tuumal Macky Sall ci le contrat qu'il a avec Jean Jean euh, comment Mimran te mu jaarale ko ci njaanjaan njaañ mm, mm, mm. dafa génnee ay preuve le contrat keroog ba muy wax ci Sénégal am na jama gars yi di jëm i Sénégal am na jama maître Moussa Diop ay kayit la génne ne leen kayit yaa ngi nii voilà le contrat qui a été signé entre l'État du Sénégal et Mimran il dafa génne ay preuve mais ñoom Bougane ñoom Thierno Bocoum ñi ñuy wooyee l'opposition radicale xaw ma mais ñoom seen opposition rek Ousmane Sonko la Ousmane Sonko dafa tele Ousmane Sonko wax naa wax naa ba ñu jox ko réew mi munul Ousmane Sonko c'est vrai que am na yéene bi mais na am audace ne Sénégalais yi munuma xamal loolu loolu c'est tellement facile loolu ku nekk mën na ko wax hmm. je crois que Sénégalais yi soxlawuñu loolu Sénégalais yi xamal lan la ñu soxla nga opposer régime bi ci ay documents ay idées ay arguments xam nga opposition dafa baax ci réew hmm. opposition dafa baax trop ci réew mais opposition bu technique la ñu soxla bu hmm. technique. alors c'est clair bu technique. mais du opposition buy tardew ci Sonko saak jabar jomaay saak bi 3 millions lay jar xam nga Sonko. xam nga c'est tellement facile alors mi ngi noonu Alpha par rapport ak ki nga xam ne que moo di Diégui Diop donc nag mi ngi si kanam mu yoon li koy mu nekk benn convocation boo xam ni itam ñëw na allant dans ce sens alors euh, donc euh, ñu daal di jàllale si leen Alpha